li tax ñuy gën a sant yàlla mooy bu la yàlla mayee nga waxtaan ak say mbokki gor ñu tënk nga tënk fekk li nga leen wax sottiwul sa xel du dal parce que jamono bi dafa yàqu yàqu goo xam ni chaque jour ñu ñuy wax ni politiciens yi dañuy naxe donc moo tax lépp lu ñuy woote pour jàppale askan yu wala jàppalante ak ñoom sax nit ñi ay nax lañu koy teg fekk loola sottiwul ah ma commencé rek fi nga xamante ni foofu la ñu jóge woon ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi di nuyu bu baax xalif généralu Thiénaba ba Baye Assane Seck di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko fi di nuyu imam bi sëriñ Seexu amadu ak chef de village sëriñ ñaana ak kilifa yi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi Thiénaba yépp tey nag dañoo amaat mbégte bu baax pour ñëw jàkkaarloo ak yéen waxtaan waxtaan boo xamante ni day continuer liggéey bu ñu commencé woon ñun ak jigéeni Thiénaba bay parce que yàlla dafa def ñuy politique di dugg ci askan yi di waxtaan ak ñoom ñi fi nekk ñi ci ëpp li ñuy wax mooy ay liggéeykat lañu dey mais dañu bëgg ñu ñu jàppale donc bi ñu boolee di. am information yooyu ak doléance yooyu man ni man day bala maa def il faut que lii ma jëm ci wut saafara yàlla boole ñu ak ay kilifa ci réew comme man dama nekk nit koo xamante damay yëngu ci politique di jàppale le président de la république te dinaa wax aussi li tax ñu mën ñu koy ñu koy bu fekkee jigéen ñi dañ nekk soxla financement mënuñu ko jële fenn lu dul ci ki nga xamante ni moom mooy état bi comme état moom moo moo man lii donc ci état la ñuy def ba jële ko fa ñu waxtaan ak suñuy kilifa ku ci mel ni kilifa gi nga xam ni moom la ñu yàlla booleel muy le président du conseil économique social environnemental président Ablaye Daouda Diallo mu boole ñu ak ay structures yoo xam dañuy financer ay femmes ñu dem waxtaan ak ñoom. xamal leen ni leen ba ay jigéen ñoo xamante ni jigéen ñu nangoo liggéey ñoo fa nekk képp ko leen romb ci autoroute Ila tubaab bi wala péage bi wala fu mën a nekk mu yor mbuusum daamaraas di ko jaay Thiénaba la dëkk te buñ sañoon loolu day soqaliku ñoom ñu nangul ñu ko ñu ñëw fi ci loo xamante ni weer yu ñu génn la ah, toog waxtaan ak yéen dossier yi ñu leen laaj jigéen ñi génn ko joxe ko ñu enrôler leen te pourtant de booba am na sax ay nit yoo xam ne danaan waxu politicien la rek duñu ñu kenn yaakaar naa weddi moom gis bokku ci ñu ëpp fii tey te toogoon fii ci lu mat weer ñi ci ëpp jot nañ tey seen financement kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di ko ci gërëm di wax ni rek loolu commencement la mais dafa ab day continuer tey ba lañu fee jógee dinañ fa enrôler ay nit yoo xamante ni. nit ñeneen ñi def ba jot seen financement ñoom dinañ ko def pour jot seen financement ndax loolu sart la boo xamante ni ñun dañ ko sartonte ak jigéenu canaba yi ak askanu canaba yépp que ça soit ñu ne ci di élection dañ koy def ngu ñu ñàkkan ne ci élection dañ koy def ndax nit ku ne boo dee jug di politique da nga war amal njariñ askan wa nga nekkal waru leen a ak wax ju bari li ëpp solo mooy la bëgg taxaw ci ci loolu laa nekk ah financement bi yaratul sax ñukoy expliquer parce que ñu ci bare bari xam nañ ko xam nañ nu muy démé amna na seeni moroom yoo xam ne njëkkoon nañoo jot ci at ye ñu euh tay ñu commencé wat ko am ñu jotat donc dañuy continuer liguey bi comme ni mako ko légui waxtaan bi liko waralon rek moy dajale len ñi nga xamni andi len seeni dossier ñu enrôler len

ci tolluwaayu réew mi ak circonstances yi nga xamante ni quand même ci la ñu nekk ndax bu fekkee ñun da ngeen di ànd ak ñun ñuy ànd ak yéen li xew ci dëkk bi tamit day baax ñu koy gën di xamlante. élection yi président Macky moom moo ko jàppoon te ba mu koy jàpp kenn obligé wu ko pour moom mu jàpp ko te moom li muy wax rek moom mooy des ci nguur yitteelu ko bu fekkoon des ci nguur yitteel na ko. du renoncé wu ci candidature bi nga xamante ni amoon na ci droit pour defaat beneen mandat parce que ay sénégalais ñoo toog voté référendum ni ko président Macky Sall am nga droit def ñaari mandat am nga droit def ñaari mandat juróomi at mu ni benn mandat bu juróomi at laa def dama ci renoncé wu damay bàyyi jàppal boppam ay élection bi mu jàppee élection yi nag euh, processus bi nga xamante ni moom moo war a saytu candidat yi ñu def parrainage am ñu jall ñoo candidats nous nit ñoo recours dal ni dañuy Karim parce que dafa nationalité PDS ku ne parti bu Sénégal gi yoroon na fi ans d'opposition 12 ans de pouvoir kon PDS japp sont très responsables assez matures pour défendre sen bop am représentativité biir assemblée nationale une commission d'enquête bi ñu defee commission d'enquête bi daal ni ñoom mbir mi dafa tey seen xel ñu ànd ak ay député voté benn loi boo xamante ni day reporter élection yi ñu demaat ba ci biir am benn jigéen boo xam ne Rose Wardini la tudd moom ci boppam mu am ñaari nationalité ba ñaari nationalité yooyu fës na bi mu fësee nag président Macky jël dogal ni comme yii yëpp am na fi nekk mënuñoo dem ci ay élection li ma bëgg jël décision ni décision décret bi ma jëloon pour convoquer corps électoral bi dàq naa ko ba jëmmi jamono ku ci nekk nag xam na ni conseil constitutionnel moom mooy li nga xamante ni moom moo ñu tënk ñun ñëpp jëlaat décision daal ni président la république ñun bi ñu constaté xam ne délai yi ñu waroon a am pour amal élection fi ak le 25 février délai yooyu xat na kon léegi li ñu bëgg mooy élection mënta am 25 février mais li ñu lay ñaan mooy nga woote nga waxtaan. ba ñu am meilleur délai mooy jëmmi jamono jamono yi nga xamante ni moo gën a baax pour ñu mën cee def élection léegi ci loolu ay nit nag jug nañu taxaw dal ni président la république meilleur délai mooy suba mënta nekk ñu bari jàpp nañ du sax du ma ni ñu bari ñi nga xamante ni seen yitte yëpp jàpp nañ ni bu ñu deful élection vingt cinq février le le 2 avril seen àdduna dafiy jaare yàqu ñoom nag lu mu leen jaral. pour que ñu def élection yi le vingt le 2 avril ñun ñi nga xam ne ànd nañu ak président Macky Sall ñu ko jaral ni ko wooteel dialogue waxtaanal ak nit ñi ñu reprendre processus bi ba ñu war a bokk ñëpp bokk ñu mën a bokk bokk ba nga xamante ne ay élection yu am transparence moom moo fi am te loolu mënta am ci ñaari fan mënta am ci ñetti fan kon président ñoo ngi koy wax ni ko ñun ñi nga xamante ne ànd nañu moom di ko xamal ni ko. d'accord nañ na ko reporté ba mu mat un bu boobaa ñu mën a waxtaan dem ci ay élection comme élection ni mu fi daan amee. di ñaanal Birane sek yàlla na fi yàgg te wer ndax lii yëpp moom la ndax bëgg nañoo liggéey lool te mi ngi ñu ciy gën a jàppale ndax lii bu fekkee ni nit ñi dégg nañ ko ñii gëm ñii gëmuñu man de ñi ko gëm ci laa bokk ndax aw ma tey rek njëkkoon na maa am si année bi passé amaan naa barki démb te incha allah su neexee yàlla. ñi ma amandoolit bari nañ ndax su matul téeméeri li ko manqué bariwul te keneen ku bëggaat mën ngaa ñëw di nga am incha allah du politique de ndimbal la ndimbal moo ko tax a jóg ak jàppale askan wi. bi ma jotee bu njëkk ba man damaa yore sama place damaa dem dolli ci sama marchandise weer bu dee ma dugal dix-sept mille cinq cent noonu laa doon def. ban conseil ngay jox sa naataangoo jigéen ñi ndax gis nañ ci ñoo xamee buñ la njëkkee financement bi financement yi commencement bi dinañu liggéey waaye bu ñu demee ba ci biir dina dinañu sooxee loolu ci financement yi ban conseil nga leen di jox en tant que jigéen. waaw li ma leen di digal mooy jot ci rek lekk ko tëdd moom baaxul wala nga fay ko say bor toog baaxul loolu mooy waral mu lay sonal ak nga dem ba naan su ma yogoon du ma jël mais soo jëlee liggéey di fay comme ni mu waree boo fayee semaine boobu dañ lay yokkalaat liñ la joxoon. boo fayul nag wax dëgg yàlla yaa tooñ sa bopp kenn tooñu la ndax ndax beraan moom dimbal rek la bëgg ku bëgg a dimbali sa bopp di nga liggéey asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu yéen ñun fi fekk kenn ku ci nekk sa tuur ak sa sant di sant yàlla di sant suñu ñaari waajur di ñaanal suñu xalifa général Baye Assane Seck yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal chef de village suñu ñaana sek di ñaanal chef de quartier yeeg ak ñun bokkal liggéey bi yëpp di sant yàlla bu baax nag di sant sëñ ñaana mi nga xam ne mooy suñu chef de village waaw di sant suñu chef de quartier ak ko bokkal kon tubaarkàlla ñu ñëw ci li nga xamante ni fi dajale ah di sant ki nga xam ne mooy borom kër gi di Abdou ñu ngi di ndijaay biran, biran ñu di ko sant macha allah muy xale bu baax xale bu yaru nag macha allah ndax dañ ne xale bu loxoom setee dina mën a bokk ak mag li nga xam ne moo ñu fa dajale rek ci financement bi defe ne ci dinañ ci sawar. ku mel ni man samay naataango ak ñi ma ko bokkal defe naa ne fii ñu toog tey jii weer yee paase daje woon nañ fi biraan woowoon na am lum ñu waxoon lim ñu waxoon nag mooy financement jàppale jigéeni Thiénaba jàppale jigéeni communauté rurale bi loola nag mu nga ca moom ñi ko bokkal ndax li tax ñu firndeel ni ñu ngi ko bokkal daana nu woo dañu wax yu mel noonu loolaat dina am ñu jot am nu jotul waaye biraan lum ñu waxoon wax dëgg yàlla teg nañ ci suñu bët man de spécial man jot naa sama bés am na ñeneen tamit ñu jot kon mën na maa jàpp ni li ci ëpp jot nañ ci te ku ci jotaguli tamit yaakaar naa ni ñu ngi lay bàyyi xel ci di nga jot ñu bëgg nag sunu moroomi jigéen ñi nga xam ni ñoom lañ bokkal liggéey bi képp koo xamante ni yaa ngi koy dégg ñu ngi lay woo nga ñëw bindu ñu def ko ni ko bëggee ndax moom jàppale nit ñi moo ko tax a jug jàppale jigéen ñi moo ko tax a jug dimbali ñu moo ko tax a jug te lépp loo xam ne waxoon nañ ko rek gis nañ ko kon képp ku bindoogul ñi ngi lay woo nga ñëw bindu te gëm ni lim la wax incha allahu rabbi dina am ñun day jot nañ lu ëpp ci ñun nag jot nañ mën nañ cee tànn ay nit li ci ëpp ni jot nañ kon ku jotagul it jàppal ne di nga jot ñu bëgg képp koo xamante ni yaakaaru nga ci li mu wax ay nax la wala ñu defa ne i politique la du waxi politique wax dëgg yàlla nam ko waxee woon daal ñun gisa nañ ko noonu